ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الحمد لله رب العالمين wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ginnaaw loolu mokk jullit yi képp koo xam ne mi ngi xool suñ jamono ji di seetlu waxi nit ñi dana gis ne diine yi lislaam day lu tumuranke la dana gis ne ñu baree bari ci nit ñi dañoo won ginnaaw diine ji donte ñi fàttali ak ñiy waaraate bari nañ lool mbokk jullit ñi lislaam dafa delluwaat tumuranke comme ni mu tàmbalee woon bu njëkk ci jamono yonente bi salallahu alayhi wa ñi nga xam ne ñooy ngoy seen diine di ci téye ñu nekk ñoo xam ne ñu tumuranke lañ ci seen biir réew nekk ñoo xam ne ñu tumuranke lañ ci seen biir famille ak seeni xarit dem ba nga xam ne ñi ngi dund dëgg-dëgg lu yonente bi salallahu alayhi wa sallam waxoon ne diine lislaam day dafa tàmbale nekk lu tumuranke lool waaye jëmbi jamono dana ñëw mu delluwaat ci tumuranke googu mu tàmbalee woon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko yàlla yónnee ci aw nit woo xam ne réer dafa tasaaroo ca ñoom yàqute bari fa lool bokkaale bari fa lool ñu ne du ñu bàyyi mukk li nga xam ne moom la suñu maam yi nekkoon ak suñu bàyyi daan ko jaamu nga xam ne kon ku ñëwoon di woote tawxiid loola day nekk lu tumuranke lool moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa ak ñu jiitu woon ci saxaaba yi nekkoon ñu tumuranke lool ci seen biir ñu daj lu nekk ci xeeti mbugal ci xeeti sonal ci xeetu xat ci xeetu xatal loo xam ne daj nañ ko ca mu nekk lu metti lool Ammaar ibn Yaasir day nettali ne gis naa yonente bi sallallahu alayhi wa ci jamono ju njëkk ja bañ koy doog a yónni nga xam ne juróomi jaam ñi ko gëmoon ci bari mooy ñi nga xam ne ñoo ñoom lañ gënoon xeeb ci société bi mu ne juróomi jaam la àndal ak ñaari jigéen ak Abu Bakar nga xam ne dañ leen a beddi woon ñu nekk ñu tuuti ñu nekk ñoo xam ne lim bu néew la woon waaye nag dafa mel ne mbokk yi tumuranke googu dafa mel ne dafa si siwaat ci beneen anam nga xam ne lépp loo xam ne lu baax la woon lu rafet la woon mujj na nekk lu ñaaw lépp loo xam ne lu daan ñaawlu la woon mu mel ne moo mujj nekk lu baax ki nga xam ne dafa ngoy ci diineem lépp comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee nekk koo xam ne ku tumuranke lay doon fa muy dund nekk koo xam ne melokaan wu nekk danañ ko ko melale tur wu nekk danañ ko ko jox di ko ŋàññi fu nekk moo tax yonente bi sallallahu alayhi nuroole ki nga xam ne dafa téye diineem ci jamono jooju ci ki nga xam ne dafa téye ab xal ci ki nga xam ne dafa téye xal kon loolu day wane ne kon lu metti la dund diine dëgg-dëgg ci jamono ji nga xam ne lislaam dafa tumurank mu ne jamono dana ñëw ki muñ ci diineem day mel ne ki nga xam ne dafa téye xal waaye su boobaa képp koo xam ne téye na ci ngoy ci bañ koo bàyyi waaye téye ci li nga xam ne moom ngeen nekk moom ngeen nekk yéen saxaaba yi nee na dana am yoolu juróomi fukk gaa yoo xam ne ci yéen lañ bokk yéen saxaaba yi nee na ñu ne ko juróomi fukki nit ci ñoom wala ci ñun mu ne juróom fukki nit ci yéen saxaaba yi ku téye diineem ci jamono jooju dina am yoolu juróomi fukk ci saxaaba yi yoon bi saa dellu waxaat ne bu saa di taxaw wala boog bu jegee dina am ay at yoo xam ne yuy naxaate la ki nga xam ne du waxkatu dëgg saa bu waxee ñu dëggal ko nee na ki nga xam ne waxkatu dëgg la ñu xam ko ci njub bu waxee ñu weddi ko ki nga xam ne ku jubadi la warkat la dañ koy wóolu waaye ki nga xam ne ku jub la ku dëggu la ku wóor la dañ koy wóolali duñ ko wóolu nee na ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee arruway bi ba ñoom ñooy wax ñoom ñooy wax ci mbooloo yi ñoom ñooy yor kàddu yi nee na ñu ne ko ñan ñooy arruway bi ba mu ne waaju tekkiwu dara waaye di wax ci turu mbooloo lu xew rek mu ne am na ca xalaat lu xew rek ñu ne woo leen diw mu wax te boo xoolee xam-xamam matewu ko boo xoolee diineem matewu ko jikkoom matewu ko waaye moom la ñuy invité muy wax di wax ci turu mbooloo mi nee na loolu soo soo ko gisee rek xamal ne loolu bokk na ci mandarga yomal qiyaam wax ji mu wax moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam lu mel ni li ngeen di dund loolu dañ cey déggee ne ñi nga xam ne ñooy ñu tumuraanke ñi mooy ñi ngoy ci li nga xam ne moom la yonente bi sallallahu nekkoon ak ay saxaabaam ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy tumuranke ibnul qayim day wax ne lislaam dëgg-dëgg bi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu nekkoon ak saxaabaam yi lislaam boobu day tey dafa tumuranke lool moo gën a tumuranke sax nam tumuranke woon lu jiitu donte yi nga xam ne mooy màndargay lislaam yu feeñ yi yépp ñi ngi koy def ñi ngi julli bu bu korite jotee nga gis nit ñi julli ji korite bu tabaski jotee mandargay lislaam yi bu ajjuma jotee nga gis nit ñi dem waaye nee na lislaam dëgg dëgg dëgg dafa tumuranke lool ñi nga xam ne ñoo koy dund dëgg it ñoom it ñu tumuranke lañ bu dee ibnul qayyim moo ko wax ca jamonoom ju yàgg kon lan la ñuy wax ci suñu jamono ji tey mbokk jullit ñi yi nga xam ne mooy mandargaal tumuranke diine ji day feeñ yu baree baree bari diine ji tumuranke na ci jullit bi ci boppam melokaanam bi feeñ ci bitti melokaanu jullit dëgg-dëgg bi feeñ ay colinam ak waxinam ak doxinam loolu boo booy xool ñi nga xam ne ñoo koy doxee ak ñoo koy waxee néew na lool tumuranke na ki nga xam ne sax moo ci nekk mën naa am mu nekk koo xam ne ku ñuy xeeb la wala koo xam ne ku ñuy reetaan lay doon diine ji tumuranke na ci noppi gu nit ñi noppi ci ñaawteef yi noppi ci nit ñi noppi ci digle lu baax ak tere lu bon dem ba nga xam ne maandu bu ñu ko waxee mooy koo xam ne day gis lu bon dàccee noppi ñu daan ne kooku moom ku maanu la nga xam ne wax ci loo xam ne lu ñaaw la wala weddi loo xam ne lu baaxut la wala di tere nit ñi lu bon di leen génnee ci loo xam ne naka sudul noona la loola dañuy jàpp ne kooku ka wala ka nga xam ne moo koy def bokku ci ñi nga xam ne ñu maanu lañ l'islam tumuranke na ci ñi nga xam ne ñoo koy défendre ak ñoo xam ne ñooy taxaw di ñoom ñooy wax ci lislaam naka sudul noonu bu ñu waxee ci suñu borom subhanahu wa taala naka sudul noonu ñiy génn di wax ak ñi nga xam ne ñoo koy naqarlu wala bu ko naqarloo naqarlu bu woyof lay doon bu ñu waxee ci yonente bi sallallahu alayhi naka noonu bu ñu waxee ci alquran naka noonu lépp loo xam ne mandargay lislaam la cosaan la buñ ci waxee naka sudul noona ñi nga xam ne ñoo koy naqarlu day nekk ñu néew lool wala boog ñi nga xam ne ñooy génn di ko naqarlu ca fés ci naqarlu mu woyof lay doon boo ko comparé bu ñu waxee ci leneen loo xam ne ci ñeneen la aju da gis naqarlu gi day fës lool dangay gis ne fenn fu nekk dañ ko ciy naqarlu ay marche ay lu ne lu ne lu ne di ci am waaye du am ci bu fekkente ne dañoo laal li nga xam ne mooy dëgg-dëgg lislaam kon loolu tumuranke lislaam lay wane lislaam tumuranke ne ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy wax képp ku jóg rek ñu daan ne ab ustaaz la ab waxkat la ab boroom xam-xam la jox ko micro muy commencé wax ci diine ji fatwa ci rabia dafa waxoon bu yàgg ci jamono al imam malik ci jamono ju yàgg ci ñaareelu siècle ci lislaam mu ne am na ñuy fatwa fii ñoo xam ne ñoo gën a yay ñu dugal leen kaso ci yenn sàcc yi kon kooku bu ñëwoon suñ jamono ji lan lay wax kon kon xanaa kaso yi kon day fees su boobaa ndax ñu baree bari ñu ngi wax ci diine ca daanaka dara xamuñ ko ci amuñ ci benn xam-xam boo xam ne war war naa mën a tax ñu dékk leen micro ñuy wax ci diine loolu ci tumuranke lislaam la bokk l'islam dafa tumuranke ba nga xam ne woote jëme ci lislaam ne dañoo war a atte woo ci lislaam li nga xam ne mooy laïcité waruñu atte waaye ab jullit dafa war a gëm ne l'islam moo koy atte léegi képp ku koy wax day tiitlu danaan yii kii kat moytu leen ko ci ay jullit ñoo koy wax ay jullit ñoo koy ragal kiy wax loolu kiy wax ne l'islam dañu war a atte julli ñi ci boppam ñoo koy ñëkk ragal ñooy tiit ci mbiram yenn saa sax ñu tuumaal ne kii est-ce que du terroriste est-ce que du koo xam ne day ñëw bëgg a taar réew mi ca fekk li mu wax mooy lan lislaam la ñu war a atte sharia suñu borom subhanahu wa taala moo war a atte jullit bi ca loolu mooy li nga xam ne moo war a am li nga xam ne moom la jullit bi yépp war a gëm moom la jullit ñépp war a gëm léegi dem na ba ku ci wax kooku day nekk koo xam ne ku tiitlu la lislaam dafa tumuraanke ci ñi ñu war a méngool ak ñi nga wax ñi nga xam ne dañoo war a denc ñoom lislaam dafa am lu muy tuddee alwala wal bara mooy ñi nga xam ne da war a féeteeg ñoom bëgg leen ak ñi nga xam ne da war a denc ñoom képp koo xam ne am na ngëm yàlla nekk na jullit kooku da da laa digal nga bëgg ko ndax lislaam bëgg ngir yàlla ak bañ ngir yàlla loolu dafa nekk dafa dem ba nga xam ne dafa seey dem na sax ba ñoo xam ne dañuy woote woo ne nañ benn la diine yi diine yépp benn la lu ci waaye jàpp rek dalay àggale ci yàlla nga xam ne taxaw wax ne lislaam rek mooy dañuy jàpp na yow ku tar nga ku metti nga koo xam ne da ngaa bëgg a tàqale nit ñi te loolu mooy li alquran karim jàngale kon dem na ba nga xam ne li alquran karim jàngale soo koy wax ci mbooloo mi yow da ngay nekk koo xam ne kuy tàqale nit ñi nga da nekk koo xam ne ku tar nga da ngay nekk koo xam ne ku jara moytu nga kon loolu tumuranke lislaam la ba nga xam ne yi alquran jàngale ay aaya di ko saxal inna diina inda allahi alislaam wa man yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala min loola booy dem di ko wax di wax ne diine yi lislaam wéetal suñ borom subhanahu wa taala topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu rek mooy dëgg képp ku indi weneen yoon wala yaakaar ne mën naa topp keneen ba mucc loolu amut ginnaaw bi yàlla yebalee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diineem mooy ji nga xam ne moo valable moom rek mooy ji nga xam ne moom la yàlla reconnaître l'islam tumuranke na ci ñi nga xam ne ñoo koy waxal ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo koy ñoo koy waxal dem ba nga xam ne dañuy jàppee kilifa diine koo xam ne amul dara ci xam-xam mën naa am sax mu nekk ak njabarkat caaxaankat waaye dañ koy tuddee ak kilifa diine ndax nii la sant wala naa la sant ñu ne daan ne kilifa diine la ca kilifa diine ci lislaam mooy koo xam ne day jàng di jàngale yonente bi sallallahu alayhi wasallam gi nga xam ne moo jiitu ci kilifay diine yi moom loolu la nekkee woon yuallimuhumul kitaaba wal xikmata wa yuzakkihim huwa alladi baasa fi lummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaaba walxikma yonente bi salaa sallam wax ne boroom xam yi ñoom ñooy donn yonente yi waaye yonente bi bàyyi yonente yi bàyyi fi wurus bàyyi wuñ fi alal waaye liñ fi bàyyi mooy xam képp ku ko jël rek donn nga yonente yi kon ñooñu nga xam ne ñooy donn yonente yi dëgg-dëgg ñooñu ñooy kilifa yi diine yi mooy boroom xam-xam yi nga xam ne dañ koy jëfee te du ci woote ci li nga xam ne moom la yoon def saa sam nekkoon képp ku nekkul ci loolu nekkoo kilifa diine kon lislaam tumuranke na ci côté boobu ba xam ne ku xamul dara ci diine ku jàngul dara ci diine mën na mën naa toog ñu koy tuddee kilifa ak xanaa kilifa ak diine leneen la waaye nag moom du kilifa ak lislaam ji nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale lislaam tumuranke na ci yu baree bari ci mandargay lislaam yu baree bari ci nga xam ne lislaam da koo jàngale dañ koo rocci dañoo rocci li nga xam ne mooy ruux bi dëgg-dëgg bi mu waroon am jubluwaay dëgg-dëgg bi nga xam ne moom lañ ci waroon am dañ koo rocci boo demee ci muuraay léegi ab modd la boo xam ne xale yi dañ koy sol rek ngir wut ci taar ñu daan ne muuraay gi kii muuraayam rafet na kii muuraayam rafet na ca muuraay rafet taxu ko woon a jug ci lislaam euh, du rafet moo ko taxoon a jug léegi nag dañ koy def ngir mu rafet ba nga xam ne jàpp nañ ne bu ñu ko defut noonu nit ñi da leen di reetaan wala dañuy jàpp ne li nekk rafetul nga xam ne ñoom dañoo dugal ci seen bopp bi ne muuraay bi lislaam jàngale moom rafetul kon da ngaa war a def noo xam ne fexe indi ay façon ak i xeeti defin yoo xam ne dafa war a rafet bañ mën leen a ci société bi nga xam ne ñu accepté leen ci société bi moo leen gënal ñu topp dëgg dëgg dëgg li nga xam ne moom la leen suñu borom digal moom la leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal alquranu dem na ba nga xam ne jàng ko sax léegi mod la dañ koy jàng ngir mu neex ngir nit ñi tàccu nit ñi yuuxu nit ñi reetaan nit ñi wax ne kii fa may yëkkatee ak ni muy daanale ni muy sewelee baat bi ni mu koy dijjalee loolu rek lañ cay am bu ndemee waaye du leen am lu mu leen ñu jural ci seen biir xol bu ñu koy jàng ci alxuraan loolu moo taxoon ñu wàcce ko dañ koo war a jàng ngir nit ñi di ko settantal képp ku ko dégg tiit am lu mu def ci sa biir xol taqshairu minhu juludu alladina yaxshawna rabbahum suñ borom nee rek bu ñu koy jàng ñi nga xam ne dañoo ragal seen boroom dañuy raf dañuy lux ngir ragal seen boroom subhanahu wa taala léegi nit ki day jàng nit ñi di déglu ñii di reetaan ñii di caméra ñii di photo buñ waaye buñ demee daal ne aka mën a jàng aka mën a yuuxu aka mën a neexal aka mën a nàngam aka mën a nàngam loola kon rocc nañ ko ci ruux bi nga xam ne jubluwaay bi nga xam ne moo taxoon ñu wàcce wàccee alquranul karim mbokk yi loolu dañ cee war a bàyyi xel ci tumurankeeg lislaam gi nga xam ne eh, am na ci jamono ji ci loo jël rek ci jaamu yàlla yi noonu la mel boo demee ci aji maak eh, ak umra noonu la mel nit ñi dañuy umra mel ne ku umra wut di caméra ak photo ak di selfie ak di wane ne ñi ngi ci kaaba gi wala yu deme noonu ruux bi nga xam ne moo taxoon ñu koy def ruux bi nga xam ne moo taxoon ñu koy def mu teewlu suñu borom subhanahu wa taala ci biir tawaaf bi loolu dem na abdullah ibn amar mas na di tawaaf benn bis am kenn ci saxaaba yi wala am kenn ci taabi'un yi ñëw di ko wax waxi àdduna di ko ñaan kenn ci doomam yi waaye abdullah ibn amar faalewu ko dafa dafa continuer ak tawaafam ban tawaafee ba noppi waa ji loola xaw koo metti waaye abdullah ibn omar daf koo woo ne ko xam naa li ma def sanq jaaxal na la mu ne ko waaw mu ne ko ñun bu ñuy tawaaf day mel ne ñu ngi jàkkaroo yàlla suñu borom subhanahu wa taala di ko teewlu duñ fa wax dara waxi àdduna loolu mooy ruux bi nga xam ne moo tax ñuy def jaamu yàlla jaamu yàlla yi dañ koo def ngir nit ñi di fàttaliku yàlla di tudd yàlla waaye defuñu ko ngir mu nekk benn modd ngir mu nekk loo xam ne ci kaw rek lay doon ab xottu lay doon waaye li nekk ci biir dëgg dëgg dëgg du ko jural ci xol bi kon euh, suñ borom rek lañuy jàmbat lii nga xam ne moo dal lislaam ak waa lislaam muy tumuranke gi nga xam ne moo ci nekk yàlla ñu suñu boroom subhanahu wa taala boole ci ñi nga xam ne mooy ñu tumuranke ñooñu mu waxoon ne tuubaa lil xurabaa texe ñeel na leen yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahuma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون fadkuru llaha alazima aljalila yadkurkum wala dikru llahi akbar wallahu yaalamu ma tasnaun membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir Sénégal ak li ko wër doomu réewum senegaal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين